bi ñoo ànd ak moom 2017 ñu jox ko majorité 2019 ma doonaat directeur de cabinet de campagne mu na def naa ne jigéen wu ma ko aussi mu jiital ma élection législative xam na waaye gagné na kon Sénégalais yi bàccoon nañu ak moom njarul mu leen di mere njarul mu leen di tomb waaye li nga xam ne moo war la nekk te président Buhari wax ko ma d'accord ci bu ngeen demee ci internet bi li wax na ko ci semaine bi ñu génn assemblée générale des Nations Unies président Macky Sall ma nga fa woon mu def mise en garde chef d'État yi nga xam ne nañu bëgg utiliser seen constitution ci anam bu dul noonu pour des au pouvoir kon loolu nga xam ne le président de la du plus grand pays de l'Afrique de l'Est wax na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 président Macky Sall dina dem loolu na yàlla dogal lépp lépp léppay jeex àddina àddina léppay jeex àddina léppay jeex ñu ànd ak moom ak i compagnon xëy na ak soutien psychologique nécessaire bi loolu dañu ko war a nangu je pense que buy dem ci jàmm ak salaam ndax mu sortir par la grande ndax kenn mënul nangu nag ay bakkan di fi ndax loo xam ne lii waruta kenn waruta nangu kenn di ci lool kenn waruta nangu alalu kenn di ci yàq parce que ni ma ko waxee troisième mandat est juridiquement et moralement impossible bu ko defee liggéey bi nga xam ne nag jot na koo liggéey waaw ki nga xam ne Sénégal yi tànnal nañ ko seen bopp librement ñoom ñu continuer liggéey boobu am na seen benn euh, collègue yenn journaliste bi mu koy wax sama fait sourire daf ma ne sa yu may musóoru taxaw ci glace bi xam naa sama xel a ngi ci deux mille vingt wax na dëgg de j'y pense encore plus intensément à 2024. J'y pense très sérieusement. dinaa dem nag waxtaan ak sénégalais yi xale yi wuti seen soutien kilifa diine yi artistes yi kilifa bien sûr ak diaspora bi wuti seen soutien. diw danaa dellu si wax nag seen kanam jox leen voilà les toutes les précisions parce que nag fii ñaarey benn bi ma yàlla suñu borom ñaareel bi nag da koy ñaarale ci Sénégalais yi ak sénégalaises yi kon nag ñoom rek ñoo koy joxe ñoom lañ koy laaj li ma bëgg jeexalee mooy wax ne assemblée nationale nag fanay des. damay des à l' assemblée pour défendre les intérêts exclusifs du peuple sénégalais. man ma député diw wala du ma député diw fonction député la boo xasee ba dugg assemblée nationale on député du peuple kon loolu.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 je veux être député non inscrit. xam naa ne nag après le comité cs comité spécial d'invective et d'insulte après dina am le comité CMHA CMHA nag xam naa mooy ba comité mimi hors l'Assemblée nationale.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

askan wi dégg ko sunu doxalin nag toujours ci tey ak tekk ak respect lañu koy teg waaye ci ful la ñu mat maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. pour nos pour nos pour nos pour nos oh nee nañ début Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier pour votre déplacement. Je voudrais vous entretenir de l'actualité nationale et des perspectives politiques.